salaam salaam salaam maa ngi leen di nuyu hmm. yéen ñëpp Fatouma Danso yaa ngi mex <laughs> yaa ngi mex di génn live di natt sa bopp noonu naan da génn di dem di di live di natt sa bopp mais yow nattal sa bopp ba am cinq mille direct nga xool koo koy def xool la wax looluy dëgg Fatouma Danso sa kooku defaloo ko dara sa nday mi ngi Ziguinchor di ñaar fukki dërëm ak ñaar fukk defaloo ko dara nga nekk si réseaux sociaux yi di ñam mi di tëb di dal di duul dégg naa la sànq sa live si live Oman yaay bi ngay fan di jaxase naan man dama wax li Oman yaay si live Françoise Hélène gay, man li ma la wax dafa leer man waxuma o Oman Njaay de man damay xaar Oman Njaay wax ma dara déggoo li ma la wax man li ma dafa leer dama ne man damay toj sa cottu nday te ku ci dugg ma ubbi la fal ndayam xana loolu wax ci leer na man mané la man may ubbi sa fal nday duma la bayyi nga ay Oman Njaay na wax ak man Oman Njaay maa ngi koy xaar ba mu wowati ma di wax sa wax mom mom mom mom mom ci boppam xalaatu ko dotuma wowati di wax ci mom ndax ndax fa ndaxte moom dafa ma woo Omar njaay dafa ma woo di ma wax ci yow pour man ma bàyyi la ma ne ko Omar kii duma ko bàyyi parce que kii duulkat la dafa mun a tooñ ma wax ko Omar Ndiaye dégg bu baax li ma ko wax le lendemain yow nga xëy laay val laay val ma laay val Hélène comme d'habitude di laay val Hélène Hélène moom ngay laaj man waxuma sama wax de man moom wax ma sama wax ndax man lu tuut la ma boobu tegee ma toj sa cottu ndey man maa la gën a réew man du ma Hélène man sa moroomu doom laa boo ma woowee fii lay xol fii lay toog di benn benn sa dëjjaw ndey te ko ci dugguma laa xaale data ndeyam xanaa loolu leer na ngay wax nga naan Oman Ndiaye wax la Codou Diagne Oman Ndiaye moom moom moo mun a wax ak man Oman Ndiaye du dootuma woowati di ma wax say wax loolu moom day leer Oman Ndiaye dootuma woowati di ma wax say wax ndax yow yow Fatouma yàlla ma yàlla mii mu wàcc bu wàccoon sax ne ma koddu bàyyi sa sama jaam ji yow duma la bàyyi te xam nga lu tax duulkat nga fenkat nga da nga mun a duul da nga mën a fen ku mën fen nga mu suma gis nit ku mën a fen ni yow mu suma gis nit ku mën a ñoddi ni yow yow da nga mën a ñoddi te doo dara doo doo toj cottu ndeyam doo doo yow daal yow daal benn mbalit nga yow yaay poubelle yow yaay bopp yaboo yi yow bopp yaboo yi ba ngay xas nit ñi yow yaay boppu yaboo yi xam nga tax may la yaay bopp yaboo yi parce que doo bàyyi sa ndey ah man de damaa fonk sama ndey lu ma am bokkook sama ndey Hélène tamit de lu mu am bokkook ndeyam wax dëgg fa neex yàlla ah waaye yow sa ndey de ma nga Ziguinchor boobu nga ba muy ñaan fukki dërëm ak ñaar fukk yorul dara amul dara defaloo ko dara kër ga ngay wax ne que ni yow yaa moom moom moo ko da ngay duul da nga koo loué léegi yow naka ngay mën a loué ba pare naan da ngay dem ba Espagne dem di jënd ji ay hectare des hectares bàyyi Sénégal ba nga xam te rawatina Ziguinchor ba boo amul million sa war nga faa mun a am benn sagaru terrain nga tabaxal fa sa ndey ngay duul Fatouma Danso ak say bëñ yow poose dangaa poose bëñ yii danga koo poose kaw bi nii danga koo poose moo waral tout temps say live ngay def nii nii ngay def say live xal jël sa beneen baaraam bi di yéegal foose bi Fatouma Danso yow waroo xas kenn fii nga fi toog saaga sëriñ si tey ngay tok di weddi nan ay man musuma saga serigne musuma wax dara serigne ku fuma ma fi saga serigne ma ko yow nga saga fi serigne ñu génneel la ko génneel wat la ko ñu fatuma Danso yow ñi ngay waxal xanaa da nga fokk ni ay dof lañ wala nga foog sa Amazon yu joy nga xam yu perte yoy jek yu perte yoy non di la suivre ak di la woo téléphone di la wax lu la neex nga fokk ne que ne ñeppayam a yam ñu Fatouma Danso da nga dof ah je te jure que yow tu malade yow tu es malade li la li la euh, nu mu tuddati waay Salimata Ndiir moom mu wax ne la que ni yow tu es malade yow tu es malade may wax nga naan da faral Abdou Ciss te démb nga ko fi nekk di ko saaga saag nga fi Abdou xas ko ne ko dafay naan dafay tux yow Fatouma Danso ku la dàq naan dafa am yow mi nga xamante ne ni sa jëkkër fii nga doon live flagrant délit sa jëkkër ne ndax ma jënd vin rouge wala blanc.

yow kenn du la jël nga joué lenn ndax niñ koy joué baaxul Fatouma Danso kattal sa dëjëw ndey sa ndey sa nday surtout surtout boiru demal nga dimbali ko xiif moo ko jàpp xo gis nga kanam gis nga gis nga sa kanamu ndey gis nga sa kanamu ndey nu mu woowee gis nga sa kanamu ndey mi ngi wow kong sa kanamu ndey mi ngi mel ni ku xiif sa ndey dafa xiif ak kuy ñaar fukki dërëm ak ñaar fukki kañ ko kañ dafa xiif defaloo ko gat may wax nga naan ay boutique alpha xaw ma lan ak lan yaa ñàkk nday fayda yaa ñàkk ndey fayda yow dañ laa raw man nii rek yow Hélène dalaa raw George yi dalaa raw man mii gën a tuuti man ma nekk